docteur Fadior ñu ngi lay dalal lan lañ mën a jàpp ci wërgu yaramu Sadio Mané xibaar yu mujj si wërgu yaramu Sadio Mané fu mu ne nii. waaw ngeen ko xamee Sadio Mané dafa gaañu woon ci óomu ndeyjooram mooy le huit novembre donc bi mu gaañoo sama collègue bi docteur Afonso demoon ba Munich seeti ko pour seet naka la def bi mu demee mu ngi seen teex docteuru clubu Munich bi euh, ñu décidé def benn IRM donc bi ñu defee IRM bi après loolu ñu ne dañuy defaat beneen IRM de contrôle maanaam pour seet hmm? euh, donc tey la ñu woon def IRM de contrôle bi bi ñu ko defee donc ñu gis ne tanewul ni ko xalaat woon hmm? donc. après loolu moom lu dañu décidé woon moo ko ne defal ko benn intervention donc euh, ci xabaar yooyu daal lu ñu mujjee eh, jokkook ah docteur yi nekk Munich donc euh, dootul mën a participer ci eh, ci coupe du monde bi de telle sorte que ñu mën a def ñun mooy di ko ñaanal hmm, mu gaaw a reprendre mu gaaw a wér pour mën a reprendre compétition yi du mu gën a gaaw